mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci biir limametti.com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñuy topp ñu ñëwaat ak yéen ci naafila bis bu nekk dinañ leen amal ci biir meti tey nag di juróomeelu melu ak ñeent bi ngeen war a def bu ci nekk ngeen amal ci benn fatiha ñetti tabat yada ak benn lixlaas benn fatiha ñetti tabat yada ak benn lixlaas ñuy ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko limametti point com di leen ñaanal kooru jàmm